ndokkeel di ñëwaat ci suñu darsu ci jumul huda ñu ànd ko yéen ci Ibrahima TV di ndokkeel ñëpp ci weer wi nga xam ne mooy weeru gàmm weeru foor ne ko shawqi waxee wulida alhuda falkaainaatu diyaau wa famu zamaani tabassumun wa sanaau juddu njub juddu mbaax juddu tiraanga mu ngi amee ci weer wi nga xam ne ma weeru gàmmu ñu ci mbo ndokkeel mboolem jullit yi amatan waaye di ci ndokkeel mboole mu tasawuf xasatan ñu ngi ànd ngeen mbokk mi ci biir keroog ci fi muy waxee rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamee ne yàlla digal na ko mu roy mboolem yonent yi ci usulu mu ne roy googu mu roy leen mooy waral ne mboolem jikko yu rafet yi nekkoon ci ñoom jël na ko maam roy na ko ba meloo ko loolaa tax nag mu ne loolu nag moo tax mu eey lool ci gën leen ndaxte su fekkee ne le gaaña dajale woon yëpp maam la nekkoon ci gaañ yëpp dajale nga ko jël ko boole li nga amoon si amu ci na rek da raw mu ne loolu itam buñ xoolee mën nañ caa sukkandiku ne moo leen gën ndaxte yàlla moo ko royloo yonent yëpp ne ko toppal seen njub ba mu toppee seen njub nag may wax jëm ne ko fa bi hudaahum iqtadi ba mu royee seen njub topp ko rek daa raw ñépp nag tey ñu war a jël ñëw ci alxujja juróom-ñetteelu lay ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo gën yonent yi mo do mune annahu alayhi salam buisa ila kaffat al khalq wa dhalika yaqtadi an yakuna mashaqatuhu akthar fa yajib an yakuna afdala li it mbok mi benen kon mom nena yonent bi alayhi salam dañ ko yónni ilaa kaafatil xalq ci mboole mbindeef bi biñ ko yónni ci mboole mbindeef yi nag mu ne zaalika loolee nag yaqtadi dafay waral nag an yakuna wala an takuna mashaqatuhu mu nekk moom coonoom moom yonent bi ak akthar di li gën a parce que kële dañ leen ñële dañ leen yónni woon ku ci nekk ci sa xeet ku ci nekk sa askan ku ci nekk sa giir kii nag yónni ko ci mbooleem nit ñi ku nekk xam na ne jëflanteeg mbooloo mu bëri moo gën a métti jëflanteeg mbooloo mu ndaw jëflanteeg mbooloo moo gën a metti jëflante kenn demet ba mu jeex kon ñële seeni xeet lañ leen yónni woon kii ñu ñëw yónni ko ci mbooleem nit ñi mu ne lan ciy déggee mooy ne kii nii ñu yónni ci mbooleem nit ñi coonoom mooy gën a bari moom mooy kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag coonoom moo gën a bari kon fa ay an yakuna afdala loolu war naa tax mu gën moom yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon liggéey sax su fekkee teg nañ ko ci yoon ki gën a sonn moo war a gën a moo war a gën a fayeeku mbokk mi da wax bi mu ne amma annahu buisa ila kaafati alxalqi fa li qawlihi taala wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas mu ne bi nga xamee dañ ko yónni ci mboole mbindee fi yàlla ma wax ci alquran ne ñun yàlla ñoo la yónni nga dem nga nga dem ci mboolem nit ñi waaw yónnuñ la ludul nga dem ci mboolem nit ñi yónnuñ la rek ci waa Quraysh yónnuñ la rek ci banu Hashim yónnuwuñ la rek ci arab waaye dañ la yónni ci arab ak ajam yónni la ci insi ak jën su ko defee yow yónnentu gi da nga koy matale dajal ko loolu ko yàlla wax ci alquran kon wa ma wa ma yaxtadi an takuna mashaqatu aksar mu ne koy loolu mooy tax coonom gën a bëri waaw coono bi li ko gën a bëri xojja la mooy xojja saamina lay bi mu lay indil mooy ne kon ñun ñëpp nangu nañ yàlla ko yónni ci mboolem mbindee fi ci loolu loolu mooy jur ñu nangu ne coono moo gën a métti coono ñeneen ñi parce que moom moo mission moo gën a màgg fa li kaana insanan fardan te moom ànd ak liñ ko yónni ci mboole mbindeef kenn nit la min xayri maalin ci lu duwul mu am alal wala awaanin ci lu duwul mu am ay ndimbal wa ansaarin dégg nga lu ca gën mu am ñu koy jàppale awaan moo ñu lay jàppale ci li nga ne ansaar moo ñu lay dépp ndimbal la amul ñu koy manal amul ñu koy dimbale wa ida qaala li jamii al aalamiina su waxee mboolem mbindee fi yaa ayuhal kaaf yéen kaaf yéen saaral kullu aadaan la ñoom mujj nekk ay noonu mbokk mi dégg nga wax bi waxi nii jamono jooje nag yasiru xaayifan dafay mujj nekk ku ragal parce que saa yoo jàkkaarloog àdduna ne leen kaay leen yéen yi woonaa leen ci yàlla ñoom ñëpp ñu wuuteeg yow gis-gis nekk sa noon mu ne su waa nag la muy jur mooy mujj ragal rek ragal ñëpp rek parce que ñëpp nga jàkkaarloo te ñëpp say noonu lañ mu ne la muy jur mooy ragal ñëpp fakkaanete machaqa azima su waa coono bi dana rëy de dana màgg gis nga ni mu la wanee coono bi nga xam ne moom la yonent bi salaa salaam daj li tax parce que mission bi moo rëy nu mu rëyee dañ ko yónni ci mboole mbindeefi mbindeefi nag yëpp suñ la yónnee ci ñoom nga jàkkaarloo ñoom ne ee eh, yéen yéeféer yi yéen wedd yàlla maa leen woo ngeen ñëw gëm yàlla su ko defee jamono yu ñëpp mujj nekk sa noon jàkkaarloo yow te yow kese yow kenn nga amoon kenn ku la dimbal mu ne su bu faw rek moom wax na la li ko waral mu nekk ngëneel gi xam ne moom kese moo ko jagoo moom mu jox la ci misaal ne la wa kadalika fa inna Muusa alayhi salaam lamma bu'itha ila bani israila wa huwa ma kaana yaxaafu ahadan illa firawn wa qawmi mu ne misaal bi ci loolu mu yàlla Muusa alayhi salaam bi ko yàlla yónnee ci banu Israayila mu ne ragalutoon lu dul firawna ak aw nitam ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo moom jàmmaarloo moom sonal ko dégg banu Israayil rek lu àdduna yaatu yaatu banu Israayil biñ ko yónni Muusa yónni ci yàlla Muusa firawna rek la ci ragal ak aw nitam loolu misaal la xoloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amma muhammadu sallallahu alayhi wa sallam fal kullu kaanu alaan law moom ñëpp nekk noonu kereg bi mu ne yaa ayuhal kaafiruun kere la ñëpp nekk noonu ci ci arab ci ajam ci nit ci jinni mbooleem ku wuuteeg moom ci jamono jooja rek kereg yow noonam te lolou na ci aduna lepp la bokk ma xana li leer بيان ذلك أنه إنسانا بيان أن بيان ذلك بيان ذلك أن إنسانا لو قيل له هذا البلد الخالي عن الصديق ورفق فيه رجل واحد ذو قوة والسلاح فاذهب إليه من وحيدا وبلغه خبرا يوحشه ويؤذيه فإنه قلما سمحت نفسه نفسه بذلك ليس mu jox la misaal ne mu ngi mel ni benn waajoo xam ne da jox misaal pour leeralal la lim la wax ni li koy dëgër mu jox jox la misaal ci waajoo xam ne dafa nekk mu ne ci dëkk bu xam ne dafa wéet ñu ne ko bi dëkk bi wéetee amul xarit amul àndandoor amul kenn ku koy dimbale moom kott rek mu dong mu nekk fa ñu ne ko eh, fee nag am na benn waay ju am doole ju fa nekk ju xam ne ngànnaay la yore demal ci moom te nga xeb jox ko information sàngam maam demal ci diw sàngam nga jox information sàngam ci dëkk bu xam ne dafa wéer amoo fa kenn kula la dimbale amoo xarit yow kese yaa fa nekk te ki nga war a dem nii war ko jox information bi mu yore ngànnaay am doole am katan ñu ne la demal dem fa yow kottu dong jox jotal ko information biñ la jox dégg nga te information bi moom jamono ji nga ko jox du ko neex te information bi jamono ji nga ko daf koy lor parce que benn xamu ko wala bëgg ko wala nangam mu ne loolu day ah dana nekk lu jëfe ci bakkan waa jooju ji ñëbal dina nekk lu ci moom ànd ak moom benn doomu aadama kese lii la misaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee mu ñëw ci alam boo xam ne war naa woo ci borom boo xam ne ñii xamuñ ko ñii bëgguñ ko ñii nanguñ ko coono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne daj na ko parce que li ko waral mooy wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas waaye mu jox misaal ne yónnee ko ci koo xam ne ko am doole la yor ngànnaay ci dëkk boo xam ne wéet na fa amul ko dimbale amul àndandoor amul fa xarit tax xibaar bi mu war a joxe waaye ji nga xam ne moo yor ngànnaay xibaar ba neexul waaye dina diis ci moom amoon na sax ba dafay lor waaja ñu wax wax ko ne ko demal nga jotale xibaar mu ne gis nga ni muy méttee ci ni muy jëfee ni muy xatte ci bakkan waajooja noonu la lii noonu la léeboo risaala gi mooy euh, yonent yi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi salaa sallam te ne ko nag jotale ko ci mboolem àdduna dégg nga mu ne walaw qiila lahu idhab ila baadiyatin baidatin laysa fiha anisun wala sadiqun wa balligh ila saaxibi albaadiya kada wa kada min alaxbaar almuuxisha la shaqa dalika ala alinsaan mu ne ba tey soo jëloon benn waay joo xam ne moom kott dong la nga ne ko demal ci àll ba demal ci village ya bu su village bu sori lool ca àll ba amoo fa benn wéttal amoo fa xarit te nga jotal boroom dëkk ba waa ji dëkk ci village ba nga jotal ko nangam ak nangam ak nangam te lañ ko ne na ko jotal waaja loola de du lu neex lu naqari la mu ne su waa dana jafe ci moom wax dëgg yàlla jëlal benn waaye yebal ko ci fu xamut fu tumaranke rek ni ko pour pour danger fu xam ne nii mën na faa looloo rek nga ne ko dem fa rek yóbbu nangam wala wax fa nangam wala jëli fa nangam ni yëf yi di jafee ci moom mu ne xool ko rek loolu mooy tolloog risaala nga xam ne nit bi gàddu ko yit ko alam boo xam ne ay alam lañ bu xam ne alam bu bu dëddu yàlla alam bu dëddu mbaax alam bu xamut sax lan lañu war a def lu mooy lañ fekkoon seen bàyyi nekk rek ñu ne ñoom ci loolu la ñu nekk alam boobu lañ ko yónni mu nekk lu jafe ci moom kon sëriñ bi radiallahu anhu melal na la risaala gi ni mu diise ak ni mu méttee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon coolu ci ay firnde misaal yi mu dóoroon la tegal la ko maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaal bii la amee bi ko yàlla yónnee mu ne amma nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi nu kaana mamuran bi an yadhaba tuula laylihi wa nahaarihi fi kulli umrihi ila al jinni wal insi alladi laa ahada lahu bihim mu ne Yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mbiram ni lim la metti nii ci gaa ñi noonu la doon bëgg mel wala sax mën a nga ne moo gën a métti loolu yonent bii nga xam ne sallallahu alayhi wa yàlla def ko yónni ñu digal ko mu dem ci maanaam ah, guddeem ak bëccëgam yépp mu koy dem ci nit ñi ginne ci giiru dundam yàlla jël dundam yépp ko ci woote tek ko ci digënté nit ak jinné nga xamné ñom ñoy ñaar ñi gëna dëgër bop ci yalla bind moy saxalé ni ñaar ñi dëgër bop ñi mu tek ko seen digënté digal ko né na yo na joxe risala gi té nak and ak li yeb la ahda lahu bi amul ak ñom ben patte bu mu siñanté ak ñom amul ak ñom ben kolere bu mu siñanté ak ñom bu xamné dañ nan bi duñ ko téppi dañu ñëw fay ñëw rek ci lu duhut benn rendez-vous boo xam ne dañaan nañ ko joxoonte nañ ko Muhammad nañ dem dafa ñëw rek woote jëm ci yàlla loolu mhm. bi nekk lu tumaranke ci ñoom moo xam muy nit ki wala muy jinni ji mu ne yonent bi yàlla yónni ko ci ñaar ñii mu war a jël ay guddeem ak i bëccëgam jël dundam yëpp fas yéene ko financé ci nii balil mu'taad minhum annahum yuaaduunahu ànd ak liñ miin yëpp ci ñoom mooy nit ak jinne mooy ne dañ ko noonoo xoonoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa yuudunahu dañ ko doon lor wa yastaxiifuunahu dañ ko doon tiital summa innahu alayhi salaam ànd ak li yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam yamil waaye yokkatut waaye mos ta yokkat min hadihi alxaala ci situation bi mos ta yokkat xaal bii mu nekkoon xamee ne bàyyi taxam ba Abu Talib ne ko ah Mouhamed yëf yi na de sa mbokk yi ñëw nañ fi ñëwati nañ fi wax nañ lii gaaral nañ la lii lépp loo xam ne daal taaru àdduna la gaaral nañ la kon ngir lima lim ba mu bëri nii lii yëpp soo ko bëggee ñu jox la ko te nga ba li ngay xoote lam ko tontu mooy yow sama bàyyi tax bi buñ jëloon weer jant bi teg ko ci sama ñaari yoxo am jël yo jant bi tek sama yoxo ci wer sama loxo cham ngir ne na bay li ma ne duma ko ba mukk lu lu ne rek dafa soti wala yalla dogal la ko sop xana kon fi di wax ji mu ne la and ak amul ben ah, du ben pat bu mu signé ben gum si ñaanteeg ñom ne dinañ ko dinañ ko gëm waaye terewul guddeeg bëccëg mu ngi jog moom yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wo wote jëm ci yalla ñukoy lor di ko xoyafal dégg nga di ko ko tiital waaye moom mos na yokk ci xaal bi walam tatakaasal te tayet walam tatakaas walam yatakaasal te tayelul bal li am mooy saara ilayhim saa mu ngi dox jëm ci dafa dox jëm ci saamian mutian dégg li ko yàlla sant topp li ko yàlla sant dégg yàlla sant ci ñoom toppaliku yàlla sant si ñoom fa hada lii yaqtadi annahu dafay dogal waral ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxammala gàddu na fi izhaari diinillah ci feeñal diina yàlla ji gàddu na ci aazamul mashaqaat aazamul mashaqaat gën ngaa màgg ji coono léegi nag ñu xool su fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na coono bi gën a rëy nga xam ne yonent yi kenn gàddu ko ci loolu lan nga ciy déggee mooy amaan na ngëneel ci kaw yonent yi ngëneel ban la ngëneelu coono boo xam ne moom rek moo ko gàddu yàlla teg ko ko mu nangu ko ngir jubal mbindeefam beneen ngëneel la te ngi mbokk mi su ko defee yi ñu wax la tey jëlati ko nga teg ko ci ngëneel yi nga xam ne tuddoon nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu am ko ci kaw yeneen yonent yi su ko defee suñ ñëwaatee dinañ tuddaat yeneen yi ngëneel yoo xam ne yonent bi la ñeel ci kaw yonent yi incha allahu ci des ci njàngale mi li lañ dinañ ko def tey mbokk mi comme dors wa salli allahuma wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi al abrar نقص زيتون يا مرتهب بالله آل وكيف وثمان حول وآل بهادي